j'étais invité à double qualité président de l'Union des chambres de commerce et en même temps euh, parmi les dix-neuf candidats je pense que jot naa ñaari carte invitation looloo tax ma dem te en même temps mu nekk plaisir ci man ndax euh, fekk fu ñuy installé président la république euh, fekk naa ko fekk naa ko ñett yoon fekk naa bu président Ablaye Wade président Macky Sall fekk naa ñaaram mhm. fekk naa bi tamit bu Bassir euh, Diomaye Faye vraiment atmosphère bi était bien et euh, neexoon na daal wax dëgg yàlla. ah bu weesoo aspect solennel boobu nga xam ne neexoon na toute la république y était le président de l'Assemblée nationale euh, les amis du Sénégal opposition bi ñenn ñi yaa ngi koy wax léegi ñu doon xëccoo présidentielle yi loolu noonu yëpp aussi ban jàngat la ñu mën def maanaam lan la mën a signifier. waaw loolu mooy wone Sénégal Sénégal ci réew yi nga xam ne nii soo xoolee ci temps esclavage sax dañ ne nga dem fekk ku nekk amerique wala ci esclave yi jóge Sénégal sax bariwul mm-hmm. ndax doo ci gis ku niroog sénégalais yaakaar naa gore moo fi nekkoon mais taxul woon ñu doon jàpp ay jaam ci biir Sénégal di leen yóbbu dañ fi doon transité mm-hmm. après indépendance tamit gis nga ne coow yu bari am na fi coow Senghor Lamine Guèye coow yu bari am na fi coow yu day am daal waaye toujours rek dañuy jubo suñ jubo ci benn situation rek fàtte et je que loolu am na solo. Mhm. li ci des rek moom mooy ñu fexe ba tey Sénégal lii ñu am tey euh, comme ni nga xam ne nii ñi mujj jox lenge yi loolu lañuy wax ñu defar institution yi xam nga soo demee euh, soo Sénégal da ngay gis ne ci campagne bi institution yi nañ réforme institution yi nañ ko defar ñépp ko wax. mais loolu waru waru woon a nekk tamit débat ci pays bu démocratique ndax en France duñ ko fa wax aux États-Unis duñ ko wax te ñun ñoom lañ ñoom la ñuy roy je pense que ñii war nañ ci def loo xam ne nii su campagne amatee. Mhm. yeneen programme la ñuy wax ay programme développement mais mënatuñ nekk fii président bu ñëw euh, woote référendum changé def nii def naa. Mhm. et donc euh, tëggee ko ni nga xam ne nii moom ko xalaatee yaakaar naa daal ñi ma gis ndegam ñoom subir nañ lu metti Eh, demoon nañ ba nga xam ne nii ñu bari ñàkk nañ yaakaar eh, ci ñoom ci seenu bokk yàlla def ñu bokk eh, gagné je pense que loolu dinañ ko dinañ ko régler loolu laa ci am. na ah, justement le président élu gis nga ko tey wax na wax ak sénégalais wax ak adduna bi naka nga ko gisee est-il est-il rassurant. waaw rassurant c'est très rassurant xam nga fi ne nii moom lu mën a am rek. Mhm. dañoo war a rassurer wu jàppale ko mu liggéey. je que c'est très tôt. ñuy wax euh, ci comportement mosum nekk président mm-hmm. c'est la première fois mu nekk ko su nit ñi commencé wax ci ni mu waxeek ni mu toogee ni mu def ak yooyu yëpp je que président yëpp dañ cee jaar daal président yëpp jaar nañ ci man je pense que euh, ku ànd ak moom ak ku àndut moom yëpp da nga war a rassuré wu et jàppale ko parce que euh, réussite am mooy réussite Sénégal na moo ndax moom yàlla yëkkati na ko ba noppi. Mm-hmm. yàlla yëkkati na ko mooy def na ko président la république mu am mënatul am lu ëpp loolu kon nag li ki des moom mooy ñun ñoo am devoiru jàppale ko yenn yi critique yenn yu metti yi ñu ñu ñu moytu ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax euh, nit amul droit critique ko waaye yàlla daana ko daana ko wax ne ko lii ak lii du nii mhm. waaw abasa wa tawalla ba mu koy wax mooy benn gumba gum doon xawoon a négligé kon ñun d'accord d'accord naa sénégalais euh, critiqué mais je pense que c'est très daal nañ ko Euh, pardonner yenn comportement yi te may ko temps. Mhm. ndax euh, temps moom ci avec le temps rek lañ mën a liggéey. dara mën a juger ah vous avez parlé des Sénégalais mais vous euh, candidat à la présidentielle bokkoon ci tey jii nii keneen falu di am aussi.